dañoo woo ndaw yi pour xool naka lañ mën a waxtaanee ak ñoom loo xam ne li objectif bi lenn la dimbal leen ñu am ay xëy ndaw yi departement de Linguère c'est vrai que bari na fi sax ñoo xam ne ñii ñëw nañ sax te nekkul ci département te du ñàkk lu mel ni buñ ko organiser dana am yeneen organisation ci yeneen département ci lu mel nii forum bi du lu ñu préparé sax lu yàgg fii man yàgg naa fee organiser ndaje amul kenn koo xam ne kii dañ koo defal li ñuy wax mobilisation ku ma ci woo dama ne bu la intéressé nga fexe ba ñëw ndax daanañ fi organiser sax di mobiliser du ñu am lii am na ñuy wax forum man yaakaar naa ne man Youssou Diagne Momar Ali ak ñeneen foog naa ne bii mooy suñ quatrième wala cinquième forum bu ñu fi def te yooyu yëpp nag man je di sax daanaka bu ci nekk maako ko financé à plus de quatre-vingt pour cent te terewu benn bu ci nekk am na résultat fii li ma bëgg dalal seen xel mooy man gis naa projet yi nit ñi déposé xam naa ñi fi ne am naa yàqin ne kenn du fi jëlee euh, jëlewoo fi xam-xam te kenn du fi jëlee lu dul njëriñ te it am naa yaakaar ne projet yi fi nekk même boo xamee ni bii baaxul même boo xamee ni bii defaruñ ko ci canevas yi nga xam ne yi moom la ñuy demande euh, danaa fi mettre en place benn dispositif boo xam ne bii yusu yusu mii moo koy contrôler pour que projet bu fi xale Jolof déposé moom mu xool naka lañ ko mën a toppee ba mu mën a nekk lu ñu mën a déposer ñu financé ko donc loolu bëgg naa nga daal si xel enfin lan lay conclure Sénégal population bi macha allah estimation 2021 on sera à 17 million on sera à 17 million de de personne personnes 17 millions yi et quelques boo jëlee daanaka moitié bi donc huit millions ak lu topp huit millions deux cent vingt trois mille donc presque quarante sept pour cent amuñu dix huit ans boo jëlee ñi nekk diggante dix huit ba trent cinq ans mooy maanaam jeunes yi jeunes yi nekk na à peu près. kon ñooñu ñoo tax ñuy wax am na solo ci lii ñuy def ñu xam fu ñu toll waaye jeunes yi Linguère da ngeen am potentialité bu am solo te xamu leen loolu laa bëgg ngeen def seen bopp parce que Linguère département trois cent mille habitants superficie Linguère nekk na quinze mille trois cent soixante quinze kilomètres carrés département de Linguère ñeenti région gannaaw Louga ñëw ko ëpp ñeenti région ñëw ko ëpp gis nga boo jëlee région wu Dakar boole ko ak région wu Diourbel boole ko ak région wu Thiès la dëkk daanaka c'est cinquante pour cent de la population ñooñu boo boolee seen superficie département Linguère moo ko ëpp pour trois cent mille habitants donc daanaka la moitié ça plus de près de 8 millions de personnes dans 12 000 kilomètres carrés. Et nous sommes 300 000 habitants dans 15 000 kilomètres carrés. Donc, am nous avons une moyenne de 2 habitants au kilomètre carré. Moins 1 km sur 1 km. Nous avons en moyenne. Donc, am nous avons un problème de souffle. amuñu problème mu ndox ndaxte à deux cent vingt cinq mètres géeju ndox moo fa nekk fii maa ngay dégg ñu la forage bi dem na ba amatul ndox raar ma forage bu ñu ci bënn correctement day am ndox rek kon am nañu ndox am nañu suuf am nañu ndox am nañu ay ndaw kon war nañoo mën a béy war nañoo mën a sàmm benn exemple rek lay jox léegi maa ngi koy waxtaanee xam ngeen ne bay mboq amul lu ci jafe bay mboq. suuf rek la laaj ak ndox Sénégal liñ ci importé bari na parce que liñ ci produire doyul te lañ cay produire am na loo xam ne aliment de bétail la di dellusiwaat ci yéen ndaxte fii ñun sàmm lañ fiy def ak mbay ñu ngi may wax léegi nii ci balance des paiements bi mbokk mi 60 milliards la lay coûter te mboq kenn ku ne xam ne ni boo demewoon ci la gasaan gal gor àll bépp nii fi mu doon nii danañ bay mboq ba ba Sénégal du ko mën a ndax taw mu ngay taw te am nañ ndox ci suuf mën nañ ñëw lim yeneen ak yeneen yoo xam ne benn bu nekk day leen di xippiloo seen seeni bët xool li ci des nag engagement la fii àdduna xëyul xëy sotti àddina xëyul xëy sotti nit ki day tàmbali ci dara di ci góorgóorlu ba dara fekk ko ci loolu mooy message bi àddina xëy lu xëy sotti bu leen gis ñu taxaw nii rek tey ngeen yaakaar ne fii la ñu tàmbalee dañoo trimé comme yéen ba toll fii ngeen war a trimé également ba da ba raw ñu loolu leen leen di yéene loolu moo doon kaddu gi ma bëggoon jibal di leen encouragé te jàpp ne fii moom gëm naa ne ku fi yendu ku ne boo fi jógee jële fi njëriñ loolu mooy kaddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakatuh